Every night se me go. Ansa may mam. Nimmaganal sinima. Sa may mam. Nimmaganal sinima. Sa may mam. Nimmaganal sinima. Ansa may mam. Nimmaganal Yo, hey. Yo, hey, yo, hey. Basuma, basuma mbare, suko nonko abidé. Liba fama le ja. Borom yëf yi daf ma tere ma laal yëfam. <clears throat> bugguma joteeg borom woy bi Europe lañu nekk basuma basuma mbare senegal coow li mel ni tulleeg mel man moom comme d'habitude sama ataaya lay teg yor soma guitare parce que j'ai l'habitude de rester seul toujours je veux rester seul ak sama look from été caaye naar tubaab yan la jeunesse Occident dafa mos a yeewu te foog ngeen xam ne boxe dafa bëri boxeur ci àdduna mu ngi mel ne rek mbër yi ak ñoo bëri mbër mais ndax mbër yëpp a bokk fi ñuy bëri est-ce que mbër yëpp ñoo bokk fi ñuy bëree waaw wala déet loolu laa bëgg ñu xam parce que dafa am si africain yoo xam ne. ay panafricain sax panafricain ak africain bokkul parce que man africain la te man révolutionnaire la man bokkuma seen affaire activisme yi je ne suis pas là-dedans te foog ngeen nangu ni Sonko ah kii ko bëgg a moromoo bu ñu fexee ba Ousmane Sonko tontu ko ñu ñëpp nelaw moom si boppam day daanu muy xaw ma la ñam si ñamale waaw France lay ñam si xaw ma voilà wax na ba jiñ ne peuple Sénégal ay terroristes la néna ñun ñëpp ay terroristes Wa lolu na ko neex mom moom wax mais ñun ñu ngi fi France xamante suñu biir té bu ñëwé on va régler ça entre nous ndax le grand Thié mu ngi fi ça ça va se gérer entre nous parce que ici nous sommes des garçons ñom c'est la racaille nous ne sommes pas la racaille. peuple africain tay ma jox leen benn secret vous savez que Boko Haram c'est l'armée camerounaise en personne et Franklin Nyamsi c'est que Boko Haram c'est la composition d'une des factions de l'armée camerounaise. Je signe, je persiste. Boko Haram, c'est l'une des factions de l'armée camerounaise qui pille du pétrole au Nigeria. Je signe, je persiste. Ils sont là, je suis là. Je me porte plainte. Je signe, je persiste. Boko Haram, démembrement ex Biafra Biafra bu doon ngan des rebelles rebelle bu nekkoon boo xam dafa noq France Afrique ce que leen ko wax la France a essayé de prendre une partie du Nigeria boo xam fait dañ ko fa noq Biafra ils ñooñu transformé tout le monde. Boko Haram donc ce n'est pas des terroristes pourtant Franklin Nyamsi xam na tu sais ça tu sais que Boko Haram, c'est Camerounais. Pourquoi tu n'as jamais dénoncé ça Vous avez jamais, vu, ici en Europe, nous tous nous sommes là, un Camerounais ne manifeste jamais. Un Camerounais ne réclame jamais leurs droits parce que les Camerounais là sont là. Soit, Camerounais, c'est pour baiser femmes blanches, les garçons, non, les filles, c'est pour avoir un, vieux tout Moi, tous les Camerounais que je connais ici vivent avec des blancs. Il y en a même qui vivent deux-deux. Ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Personne ne me l'a dit. Je l'ai vu de mes propres yeux. Personne ne me l'a dit. Et puis eux là, qui se réclament panafricanistes, vous qui êtes en Afrique, cette jeunesse-là, c'est parce que vous n'avez pas compris. Qu'est-ce que c'est Comment le blanc a fait Savez-vous que ce ne sont pas les Français dont on vous explique là. La France, colonisation. Moi, je m'en fous de la colonisation complexe française qu'on nous a imposée. Eh, la colonisation, elle est arabophone. Et qu'est-ce qui a détruit cette colonisation fond là C'est l'empire du Ghana. Le Ghana se, trouvait où La première rébellion, c'était en Mauritanie, c'est le Ghana. Ce n'était pas l'empire du Ghana là, ça n'existait pas. C'est en 1203 que l'empire, que le Ghana, le Ghana c'est la Mauritanie. L'empire du Ghana s'étendait du Sénégal jusqu'à Soudan. C'était la Mauritanie. Entre 1203 je vous dis bien, la première révolution, la première révolution africaine, c'est l'Empire du Ghana qui est la nouvelle Mauritanie, dont s'est souvenu Joe, Rawlins après son fameux coup d'État pour redresser le peuple ghanéen qui a changé son nom pour être Ghana. Non, le Ghana c'est la Mauritanie encore une fois. Je signe, je persiste. Quelqu'un n'a qu'à venir me démentir dans l'histoire et puis me sortir. La preuve. À partir de 1240, comme l'Empire du Ghana, eux aussi, malgré leur révolution, là, ils voulaient imposer l'islam. Les Maliens, là, aujourd'hui, Assimi Goïta, ses grands-parents connaissent ça. Ça, c'est extrêmement naturel chez le Malien, la révolution. Le changement, l'Afrique, le changement catégorique de l'Afrique, de l'Africain, de la peau noire, mais c'est venu où Du Mali. En 1235, ils ont démarré la révolution. En 1240, la révolution malienne a vu le jour. Donc l'Empire du Ghana n'a que vécu que 37 ans. Je ne sais pas, 38 ans. C'est en 1203, oui, 37 ans. Oui. Malgré l'Empire du Mali, l'Empire du Mali n'a jamais récupéré après le royaume du Ghana, parce que le Ghana s'est transformé en royaume, parce que l'Empire du Mali s'est transformé carrément en une batterie de chevaliers de guerre. Qu'est-ce que l'Occident a fait Quand l'Occident est venu, il a dit que ce peuple-là, il se respecte trop par rapport à le royaume. L'Occident a pris pour commercer des gens comme Franklin Nyamsi. Des gens que j'appelle les saupoudrages de l'Occident, c'est les saupoudrages de l'Occident, comme Franklin Nyamsi. Des gens qui ont tellement vécu avec l'Occident que l'Occident a tellement manipulé dans la langue de Molière et puis lui aussi, il s'est bien manipulé dans la langue de Molière il est de très, très, très grande gueule. Son avocat, là, je le vois. Heureusement que je ne le salue même pas. Pourtant, on se rencontre dans les manifestations. L'AS n'est pas une idéologie de division. Et vous n'allez jamais voir un militaire panafricaniste. Moi qui vous parle, je ne serai jamais un panafricaniste. Je suis africain. Point. Vous n'allez jamais voir. Assimi Goïta n'est pas panafricaniste. C'est un révolutionnaire. Ibrahim Traoré n'est pas panafricaniste. C'est un révolutionnaire africain Tchani n'est pas panafricaniste. C'est des révolutionnaires, pas des panafricanistes. Ils n'ont jamais vécu en Europe. C'est vous, la racaille de Paris, là. Comme Kémy Seba. C'est vous, la racaille de Paris, là. Vous pensez que vous êtes des panafricanistes. D'abord, votre code de langage, c'est bordélique. C'est pas africain. D'abord, votre code de langage, c'est bordélique. C'est pas africain. Vous êtes trop bordélique. Et c'est dommage pour ceux qui n'ont pas encore voyagé. Venir voir, c'est ce qu'on vous explique. Pourquoi je refuse de vous dire que moi je suis africain Parce que j'ai mes origines et je garde mes cultures. Je ne suis pas un enfant des cités. Négatif. Moi je suis africain, brut, un casassé de sang, brut. De ce fait, vous, les Sénégalais, parlez, nous gauche-droite. Nous, on va régler notre compte ici parce qu'il y a un leader qui est là. Il y a le grand Thier qui est là. Vous, Sénégalais, qui vivez là en France, je ne parle pas aux soi-disant prieurs musulmans qui se sentent terroristes. Je ne vous parle pas. Mais les Sénégalais qui se sentent vexés, les Sénégalais qui se sentent touchés dans leur orgueil, qu'on nous a traités de nous tous des terroristes, donc là, Niamsi, il est allé un peu trop loin. Et puis c'est un corrompu. Qui t'a payé ton billet d'avion, Franklin Niamsi, pour aller au Mali Et c'est dommage que ce n'est pas, eh, pas un panafricain qui est au Mali. Hein. C'est un citoyen français qui est au Mali. C'est Niamsi, le citoyen français. Moi, c'est ça qui me dérange dans tout son aura. C'est un citoyen français, encore une fois.

bu dee raak dugg si terrain bi raak dóorante ndeyam ñoo leen gën a wëyu ñoom ñëpp xamante nañ suñu biir fii ñun xamante ñu suñu biir ñun portugais yeeg maliens yi man ngaa yàlla baax na om tout terrain la je circule seul man yàlla baax na lu may def j'affronte tout seul samay garde à vue si seul mais sénégalais lan moo tax na léegi ñun tubaab ni mu fexe tey ba dugg au lieu mu ñëw nungu Sénégal nungu Mali déedéet dafa ñëw dugg ci waxtaan si damay ko commerce naxanteeg malien naxanteeg sénégalais ba dugg fenn jaxase ñu suñu biir nax nee na ñun ni ñu juboo dafa ëpp da ngay tooñ diw mu dem si doomu nijaayam doomu nijaayam woo ko ne ko eh garaawul moo la tooñ wante mag la demal jégalu ko nga jégalu ko loolu amoon su sous l'arbre a palabre tubaab ñàkkam ak fàqir ga mu doon dundee tubaab ñàkkam sol tubéy bii du neen fii boo fi nekkee seexlu jigéen moom ma njëkk dal fii jëm mi sëñ Bamba lu waay bëgg jigéen bëgg jigéen bu la fi été fekkee dina am foo xam ne bu jigéen simbeekoo sa kanam doo si mën dara ndax da ngay siixlu ndax jigéen yaramam lay bàyyi ci biti sa sañ na sol silib génn dox yow góor pancan ngay sol c'est le monde à l'envers moo tax tubaab dafa fexe ba dugg ci ñun dugg suñu culture la tubaab ñëkk dugg suñu culture mooy lan xeebante ñun loo xeeb xeeb xeeb nit bu wax dëgg jotee dañ la koy wax dem leen laajte buur siin amoon na ko nekk ci taatu këram bu yëngalee ba yëngal mu ne ko hay moomoo ñu di yow it moomoo ñu nijaayam la Casamance buur bu mës a yëngal eh Soundiata Keita yëngalam yëpp kan moo ko doon freiné nijaayam léegi na sa nijaay wax nga toj lu bonam yóbbu ko police loolu la tubaab fexe def si ñun bi tubaab réussir def ñu ay noon ngeen foog ni noon yi ñu tubaab ba defoon noon yooyu dafa jeex ba tey sëñ Bamba ñaata wujj la amoon c'est que tubaab fi fi tubaab di xalaatee ñun nekkuñu fa ñun dañ nekk ci ay sentiment tubaab dafa nekk ci lan mooy sama raison ñii ñu tas bu ñu tasee ma ñëw jël seen ressource bu ma ko jëlee dinaa ko jiite ndax ñoom kenn nangu jiite sa morom moo ñu dal Franklin Ndiam si looloo ko dal il a le complexe bi Ousmane Sonko jiitelee Diomaye Faye ne affaire bi choc la def ñu bëri choc choc la def ñu bëri te ñun ay la yowoon bi ñuy yux Ousmane Sonko a trahi a trahi je défie quiconque Ousmane Sonko bi muy nekk premier ministre Mali premier coup d'état wam la subiroon affaire bi metti woon loolu am na benn attaque bu fa amoon Daniba moo nekkoon Burkina Faso Basum mon nekkoon Niger il y avait pas l'AES parce que j'ai très bien écouté le discours de Choguel Maïga non j'ai très bien écouté tey laa jël sama temps déglu premier ministre malien bi lu Ousmane Sonko espoir vous mu joxe woon xam ngeen ban espoir la pour militaires yi mënoon pousse ñoom ñëpp andi régime civil pour mën coordonner une révolution entre le Sénégal et nous. C'est taxoon Ousmane Sonko Afrique am espoir ci ñoom nii lii mosul am ci àdduna ñu fal benn président mais Ousmane Sonko mooy président ou Diomaye man mii de wax rek je fais les mêmes erreurs que tout le monde Nous ñëpp ci Ousmane Sonko Ousmane Sonko France Ousmane Sonko Mali Ousmane Sonko la presse Ousmane Sonko mais la presse joteewu ñoog dara Diomaye de Sonko lañ joteel man waxtaan naa si ay journalistes. Sonko ni, Sonko ni. Saga, lu ne ba tey gaa ngi koy de Sonko ma woon ba tey mu ngi Sonko di sàngaate kon nag lan qu'est-ce qui se passe ban espoir ban yakar la gars wajini, waji ni ba tay mu falu rek kenn mayu ko mu noy kenn du africain du tubab du kenn kenn mayul Ousmane Sonko mu noy y'a pa y'a pa te waxon na len di ngeen deg yéen patriote ne woon na len di ku ci amul xol muñ di nga deg ku ci amul bobu bu dañu la manipuler rocc le fi nga nek li ngay gëm ni dañu la rocc ba nga set

total bu aduna bu atmosphère bu aduna. mois d'août manam khalis day taxaw atmosphère day taxaw jibi li nga ji yow du meuna a ñor mois août day taxawalo day tolbi ci bir tol bi di ci papi ce qui fait que mag ni buñ daan bay ba le 15 août jot dañuy dajalo ñom ñep def baaw naan baaw naan yon la gon am ci at baw naan ngir dak njéeréer yi baaw naan ngir bu taw

ku ma judd Israël ma judd ko sa ndey doomu ram parce que dama rasa gis de pute ñu naan ma sa connaissance connaissance judaïque man ku ma ko connaissance judaïque ma dëgg sa ndey man connaissance africaine la te man ni la gëmé né 15 août ñëpp ko mom tabaski yeen africain wax leen ma yeen tabaski sen ban mam bu fi baye diiné moko mom moom ñeneen lañ ñëpp a ñuuloon Abraham dafa ñuuloon no mom mo rendi noo kon ku moom tabaski foog ngeen ni codé temple yo woon seeni maam baaxuñu temple yo woon mooy jumaa yu tey te léegi les jeunes ont trop compris ku ci mel na <laughs> ndeysaan sama waaje Cheikh Sakhir Ndiaye waaw ku ci mel na Cheikh Cheikh Sakhir damay waxtaan ak benn taalibeem bu mu duggee kon buma dugg boy bi lakarti ko ma meew boy ñaat at nga mu 17 ans ma catastrophe 17 ans té comme ça là <laughs> mu ne ma waaye damay waxtaan ak kilifa gi lu bari ni wante ni ma xam nga luma neex ci yeen waxul len waxin kàllaama arab vous n'êtes pas arabique ni francophone mais vous êtes resté vous motax may xex ci daara yi ni daara yi ngeen gis publier naa ko sama Facebook même système daar Touba bi buñ ko jàngalee ba pare daara yi gis naa système buñ ci dawal foog ñu defal leen système ubbi xel yeete daaj gis nga booy yi foog ñu jàngal leen culture générale am naa leen baabu taam saam bisimilahi rahmaani rahim non non non y a pas ça dans le Coran Coran da lay jàngal dund dund éveil ubbeeku conscience am réserve booy yi nga leen di dóor si Trump di dóor ba Chine di dor Hong Kong dugg si bourse yi booy yi wàcc ma xool ma ne waa mais booy bi ban taalibe la kii nii booy bi quest que qui se passe mu ne ma sa Sakhir ma ne ko mais xam naa ko mais yow alxuraan nga fay jàng wala la nga fay jàng ma ne ma waaye gannaaw lépp nga si alxuraan ma ne ko mais mënul nekk ndax man jànguma alxuraan kon mënul nekk. mu tax la jeunesse lu waay góorgóorlu ci xam-xam di nga ko soxla ngir sa njaboot. lu waay góorgóorlu si xam-xam di nga ko soxla ngir sa njaboot. di ngeen toll foo xam ne yeen jàng kese dootul mooy dara jàng day am lu muy àndal xam nga lu muy àndal jub jub xam nga mooy leen sutural sa bopp sutural sa bopp xam nga mooy leen jomb am njomb teef foo ngeen am loo leen di jomb def blog bi day jot si am ay njomb teef yu bëri boo àndeex nit bu waxee dëgg taxawal na ko wax nga dëgg bu waxul dëgg taxawal na ko waaye eh, li nga waxoon seetaat ko ni nga waxoon seetaat ko parce que tey buñ ñu nemee duut baaraam rek lu bëri ñun la ñun ñun parce que au lieu ñu nekk si TikTok yi dugg si panel yi di débat di réserver mais ay saaga ndey ngeen di fajee seeni programme dugg si nga dugg page yi dugg politique nga fekk fa sénégalais yi di saaga ndey ivoirien di saaga ndey malien doo comprendre lu xew dugg ndey ci diine yi fekk sénégalais yi murit yi taf foto nit ñi di saaga ndey ku leen neex ba jël jëwriñ Ndiassé teg di saaga murit ay murit koy def ay murit nga dem TikTok bi fekk sénégalais yi seen jëkkër yi ana sutura yàqante boobu la tubaab réussir moo tax ma andi leen ci empire laa xëccee pour wan leen ni tubaab li mu réussir dafa yàq ñun Sénégal sëñ ma ñàkk na ko Maam Maodo ñàkk na ko Baye ñàkk na ko yëpp ñàkk nañ ko wante gynécologie lañ ko yàqee. gynécologie lañ laal laal mercier duut fa baaraam ba pare bëgg a xale yi tam leen dëmm ne ay góor jigéen géen ay caga ngeen ay franc-maçon ngeen déedéet waajur yi ñun ñoo commencé yàq bi ñun ñoo amoon complexe jël suñu jabar séddoo ko ñun ñoo yoral suñu doom àq ñun la suñu jabar biir ba diis ñu yóbbu ko góor baaraam ko suñu moroomu góor ñun ñoo yoral suñu doom àq ñu dal xale yi tey ñun ñii waajur la commençant par man lu dal suñu njaboot tey ñun ñii la ñun man la yow miy dema seetaan tey waajur maax yow ñoo teg xale yi tey li leen dal xale yi amatuñu repère saagante nday bay seen repère parce que amatuñu repère seen xel yaa jaxasoo balaa ñoo juddu lañu ñu jaxase xelu xale yi ñun ñooy programme bi de xale yi defuñu ni dara de kaso yi fees na xale baa ngi tey dem Thiès xool moromam lan la ko def jàmpaaka mu dee si lan Jakarta jërëjëf la communauté Ndiago loo leen ragal yàlla na leen ko yàlla dàqal bésu 15 août bi tey communauté Ndiaga bu cees communauté Ndiaga bu Thiès yàlla naa ci am numéro téléphone kenn dëj bi dinaa ci def sama wàll ba mu rëy ndax tey ni ngeen jëlee agresseur boobu tey taal ko tey exemple la fexe leen ba gis beneen booy bi ko yeboon ñoom ñaar ñooñu ki ngeen taal noonu fexe leen ba gis beneen booy bi balaa policier di ko gis ngeen taal ko c'est pour l'exemple gis nga xale xale ay wajuram buñu xamul fuñuy taxaw bu xalé bi génné jikko mala rendé ko gis nga mak ñu ñëk ñi dañu doon dundé dund bu graw gis nga nit amna foy génné ci mak ñu ñëk ñi dañ lay rendi parce que Moussa mo fi andi lool té Moussa du arab der bu ñu la suñu mam ñoo ko fi andi nit bu dundé ba ñiteetul ba génné surface nit yi taw yow te 550000 cent cellules yi dawal sa cerveau tax nga stable say mu wacc ba 500000 say mu yek ñu ne le surdoué gis nga bu xasse wacc ba nek ay 125000 vingt cinq cellules dund ni mala gëna wacc bu dundu ni mala rek rendi lan ko loolu la bu diine boo demee rendi ko bo démé ci justice dal na rendi ko moy ku ray nit lum la wax ray ko waw diina dal na ray ko nga dem suñu mam budé Casamance rayal doomu jamour xool ñu tëj la kaso ñu fekk la ci biir kaso bi ray la fa. c'est simple comme bonjour ray la fa te ray bo bo, a métti da xol dañ la koy fébar jaral la samp di ñew di dag man mun na jël garab boobu xol ñu tëj la 10 ans may dag garab boobu neuf ans say ma ñew dag sa toxotaan mu def tap, nga nekk fa say ma butti sa jumbax dem. ma ñàkk sama ndey dina la buddi neuf ans yo xam médecin hôpital duñ la faj kenn du la faj. lan moo tax kooku dafa génn domaine doomu aadama jël doomu jàmbur xoola nu doom defee si xool nga rey ko mais tam laaj na tam xale yi ñuy def nii sanction bi police rey nañu booy bi de mais ay waajuram nag ay waajuram nag fu ñu nekkoon ba xale bi mel nii bu dee fii ba waajur dañuy bokk ci enquête de loolu la ko waajur yi sas ba mu war a dem jëli ji moto jàmm te demu ñaqi lan violence ban violence verbale la xale du di subir ba tax ñuy dem di agressé ji di à alalu jàmbur. Yako ko jur munoo ko jox mu lekk que ko jox mu naan ba suur boole si naan ko sa morom yi sa morom yi sa nawle yi. lii metti dafa beuri si dëkk bi ah. li fi metti dafa beuri. te man wax si te ma jooy ndax xale yi su ma gisee xale def lenn yi rek damay jéppi say waajur man loolooy sama cat man damay jéppi mag ñi man au lieu ma dóor ci xale yi mais mag ñi laay jéppi parce que yenn yëpp violence verbale boo ko andi gis nga violence verbale bi am si couple yi violence verbale bu gën a dangereux mu ngi am ci famille yi saay papa def xale loo xam ne xale bi dootu ko fàtte si fini saay nga wax doom loo xam dootul denc ci mémoire am c'est fini doom boobu répudié na la même boo lu ni dund ni da koy négocier bu dee doom boo xam ne nag double corps injection lay daw gis nga li nga ko wax noonu dafay tijji beneen corps bi xam nga xale benn corps lay dawee mais gis nga saa nga tëflu ko wax ko wax bu ko metti boo xam ne gis nga bu tijjee beneen corps bi ba xale bi déclenché day mel ne yàlla da ko taal te yéen xale yi wër sa gëg tey kenn yoru ko de ay lii barke nday nii kii bàyyi c'est archi faux archi faux archi faux sa baay ni mu amee wërsëg moom bàmmeelam moom kese noonu la sa nday amee wërsëg moom bàmmeelam moom kese noonu la yàlla bindalee yow wërsëg seen l'islam Sénégal c'est très contradictoire waaw yaay lii la yaay lii la ba pare ñu ne la ah boo demee yama xam sa ndey dootu la tal sa baay dootu la tal ñëpp ku nekk <laughs> day seetlu sa bopp yee l'islam Sénégal c'est contradictoire catastrophe <laughs> ça c'est quel genre de religion dans mon pays waajur yi ñun ñoo war a toppatoo suñuy doom ñun ñoo yoreel xale yi àq faal faal nañ leen toppatoo xale yi te bàyyi histoire féticheur yi ñu leen di tagal non cottu ndey Afrique non non man je comprendre plus Sénégal da ngay war do sa dom di yar sa dom pour mu to la man ah, Sénégal la ko gis ak bu dom bi top to ngay sag dem diko defli ba xalé bi dem xaru wala xalé bi dugg ci geej gi lap mais mais mais wala xalé bi dem agresser ji dem satch ji jëmmi señ bam Sénégal seen diine amul de amul ça n'existe ñun nulle part bu amé 1000 francs sa yaay mo la ko jox liguey nday la Sénégal kessé la am liguey nday bo xam yamal xiyam bo fa démé sa yaay amu fa liguey say jëf fa né yamal xiyam benn nday amu fa job fal yamal xiyam say jëf yow mo fa né gis nga sa nday ak sa baay yar nañ la ba paré bo maggé ba majeur té mort dans le film yow sa yau, yow yow mi di xol ak man ñun man yow suñu ak suñu borom koku yoonu nday nekku ci yoonu bay nekku sa digganteeg sa soxna yoonu ndey nekku ci yoonu bàyyi nekku ci gis nga ni ngeen wéetee noonu noonu nga yore responsabilité am leen doon ay ngaaka waay bàyyi leen doon ay ngaaka basuma basuma mbare bàyyi leen doon ay